يدي Telecom لماذا amnon wow ngeen di plus précisément Marseille Coloban iPhone yi ngeen gis Ndongo Telecom iPhone yi mujjee iPhone 12 Pro 11 Pro plus iPhone ci ndongo ngeen koy amee ndongo télécom nekk marché Colobane dafay jaay iPhone waaye dafay def décodage ak lu ngeen munti soxla lu ngeen munti bëgg ci wàlluk iPhone da ngeen di jokkoo ak ndongo télécom mu ngi nekk marché Colobane jëlal numéro bi mbokk 77 233 23 18 77 233 23 18. 18 wala nga def 70 724 83 92 70 724 83 92 yéen clients yi mën ngeen ñoo fekk ci Facebook ak Instagram ci Ndongo Télécom bu ngeen demee Facebook def Ndongo Télécom bu ngeen demee Instagram def Ndongo telecom di ngeen mën a gën a gis suñu ay bagage iPhone boo mënti soxla iPhone yu mujjee génn mani su ngeen buggee iPhone bu bees tàq bu kenn dajegul ci paquet jokkoo leen ak Ndongo Télécom mu daal leen koy jox avenant yu bees tàq ci ndongo téléphone ngeen koy amee ci prix bu abordable neexul ba neexul waaye affaire bi ndongo télécom la gars ko wax de iPhone moom bàyyi lag ndongo télécom képp koy jaay iPhone ci mim réew di Sénégal ci ginnaaw ndongo ngay topp ndongo télécom yow affaire bi yow la